dañ koy bëggee. tey boo ma doon wax ci Demba Guissé tuuti euh, ban genre artiste la loo may moom. mais euh, il a fait du chemin. ci affaire yi gën a méttee. Mhm. ba nga xamee ni kenn ñemewul woon. Mhm. nga xam ni xale yëpp dañoo toog di seetaan Demba dafa ko. c'est vrai Demba dafa instant boobu noonu. loolu moo ko waral loolu moo waral tey mu gagné le respect de chaque mais est-ce xam na ni. Baba Maal ak Demba. Mhm. ak Wally Seck ak Youssou Ndour ñoo tax a feesal France. ah macha allah <laughs> merci. formidable mais c'est formidable ah maître. <laughs> mais maître alors euh, euh, comment tu trouves ce garçon. mais magnifique. Euh, extraordinaire il est bien il est bon. il est bon oui. Euh, Baba Maal lañu indi teg ko mais plus jeune. ndeysaan. xam ni moo gën a encore baisse de voix. oui le roi du Yela El Hadj Baba Maal. waaw mais c'est extraordinaire. oui ils sont non, bons non non je pense que Baba Maal mën na mën na ni léegi la relève. oui la relève la relève est là encore. et que et que sunu sunu jaam yi. Mhm. Euh, ma ci du séeréer yi. Mhm. muy muy muy apulaar yi. xam mhm. <laughs> nangu nag. Eh, nga ni nga ni apulaar yi am nañ am nañ koo xam ne fi toll nii. Eh. ah baaba jëm ci mag. <laughs> waaw waaye. démbaay yu doom ji nañ ko ñaanal. Eh,